ba si ay Macky Sall Marème Faye Sall Aliou Sall ñoom ñëpp ay maître El Hadj Diouf may la sum waaye clochard boobu noonu nga xam ni tekkiwul dara yow maître El Hadj Diouf. d'accord maître El Hadj Diouf dégg naa. Euh, non bu dem bu dem ba saaga benn journaliste léegi ñu gis loolu. yéen journaliste yi yéen ñëpp laa waxal maître El Hadj Diouf bu leen saaga bu mu leen saf parce que clochard la amul fulla amul fayda amul dignité amul ngor yaa ngi dégg martaat la sàcc la dunguru la du dara. ma ne la sumuwaa xoola Sénégal vraiment ñii ñoo tax ma ne la adduna bi yëpp ma ne la sumuwaay xoola xeeb Sénégal ndax genre lu mel El Hadj Diouf lan la defal Sénégal lu dul fen bu teeyee mu ñëw xoola ngaañu Macky Sall bu subaa mu ñëw ànd ak Macky Sall dal opposant yi fenkat nga lépp loo wax du ñu saf te xoola Sénégalais yëpp boycotté nañ la te kenn du la déglu parce que xoola yow baaxoo si askan poson nga yow poson sax moo la tane yow Me El Hadj Diouf as dëgg nga naan maître El Hadj Diouf avocat yi seen bopp nawloowuñ ko te xoola maanaam il a trahi tout l'image de l'avocat il a trahi toute la noblesse de l'avocat parce que avocat yi ay noble nañ ñoo baax ci société bi yaa ngi dëgg di jëriñ société bi di jëriñ askan bi yu bëri mais moom xoola contraire bi la ñëw mu boo askan bi naan l'avocat du peuple xam nga le député du peuple da ngay fen tekki woo dara li wax ne ndax lii lii yëpp nax senegal xoola du ñu berti de parce que moom ak Macky Sall xoola ñoo bokk ñoo yem ay Marème Faye Sall seen lobby ñoom ñëpp benn nañ da doon dal Macky Sall waaw naan Macky Sall tu m'as déçu léegi xëy na ñu woo ko jox ko xaalis léegi muy génn may la sum waaye di saaga nit yi ah di saaga Ousmane Sonko yoo koo xamante ni nii saa waay même bu dee dóorgat la sax ñun gisuñu ay dóoram yaa ngi dégg noonu la demee parce que koo xamante ni nii saa waay ak lii ak lii la am leneen gi sax man saa waay xoola jël leen ma ngeen tëj ma yaa ngi dégg ba pare jël salaire bu député may la sumuwaay loo xam yow doo ko mus def te musoo ko def yaa ngi dégg noonu la demee ko quoi Ousmane Sonko askan Sénégal xoola ñooy gis seen bopp si Ousmane Sonko karawam sax moo moo la gën yow gën sa xeet gën sa askan naw loolu la et xoola mooy li ma la xoola may ñu suñu jàmm kenn du la déglu doo dara. dama ne la fankat la dama ne la. fenkat la mythomane la mythomane la daa feebar na dem faju ji lépp lu mu ñu wax ñun duñ ko dégg askanu Sénégal El Hadj lépp lu mu wax ma la sumu waay xoola bu ñu ne woon ay bëñam weex na sax ma ne la sumu waay duñ ko gëm ndax duñ ko sax déglu parce que fenkat la dafa feebar am na am na lu ko doy na lijjanti viol yi ñu ngi ko jiiñ xale yu ndaw sa moroomu doom yi ngay tëddee ñun xamal na nga la yoo xamante nii ma ne la sumu waay xoola ñu ngi lay suturaal ndax mais xoola buñ fonton bul yab sénégalais bul yab askan wi bàyyil nit yi yaa ngi dégg da bàyyi fen nga bàyyi génn fii xoola gauche à droite di mele mele mele kenn du la déglu ndax lépp loo wax ay fen la noonu la demee ñoom ñëpp wax ñoom Macky Sall ñoom ñëpp xoola ñoo bokk ñoo yem parce ñoo mën a ànd ñoom ñëpp kenn amu si jom ma ne la su ma waay ay magum jëm yoo xamante ni nii xoola maanaam poson sax moo leen tene parce que poson sax xëy na mu naree ay ay insectes mais ñoom askanu lëmb nañuy jël xoola di rey xam nga lu ma la wax noonu la demee quoi moomoo leen nit yi yërmande te yàlla tax wàcc leen sénégalais yi amuñu jom. amuñu dignité amuñu fulla amuñu fayda te ñàkk nañ ngor xoolal Macky Sall nu mu def xalifa Sall yow koo xamante ni nii saa waay yow doo génn di wax ak sa presse yoo xamante ni mooy xew si réew mi pétrole bi depuis kañ ñu ngi koy coow waxu si lépp lu muy wax si tubaab bi la may waxee parce que tubaab bi lay jaamu may la procureur boo xamante ni may la sum waaye ngay ñëw naan ay xaw ma egsi comme ni ma ko waxee procureur boobu xoola kenn nawloo waxoo du justice xoola ñëpp ñu nekk si justice nga ko justice ñëpp nga teg gàcce askan bi ñëpp nga teg gàcce ay waay boo dee góor démissionnel te yàlla tax man de saa waay man de man de gëm naa li mu def noonu bu doon man la xëy na damay xëy rek xaru xam ne lii antanu ma ko parce que yëfu góor a bàyyi deretu góor bàyyi saa waay bu dawul seen yaram yi te dawul sax seen siritu yaram yi bàyyi saa waaye ngeen dem ngeen xaru quoi wala ngeen bàyyi Sénégal xoola ngeen démissionné dem fu leen neex ngeen dem seen yoon ñun ngeen bàyyi ñun suñu dëkk xoola ñu gérer ko suñu bopp te yàlla tax ñun sénégalais bàyyi dëkk boo xam ni saawaay ñun ñëpp xoolal lépp ay ressources la jeunes yi bàyyi kenn amul liggéey baa xoolal santé bi nu mu doyee waar ak yeneen ak yeneen ak yeneen xool leen dëkk bi nu mu méttee te ressources yëpp may la su ma xoolal ñu ngi toog si ay xoola ay milliards et milliards yoo xam ne bi ñu ko tegoon si yoon sénégalais bu si nekk may la su ma xoola chaque mois na nga la fay un million ñu bëriwuñu quinze millions kese nañ te ñoo ëpp ressources ay dëkk yu ay dëkk yoo xamante ne nii ay plus de trente millions habitants nañ te ñoo ñu gën a développé suñu problème mooy njiit yi man du ma ko nëbb de man sénégalais laa fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yoroo Sénégal laa am te xoola patriote ma gëm sama réew bëgg sama réew mënoon naa dem kaaw ba mais dafuma ko fii laay toog may la sum waay askan mi di wax sama làmmiñ lenn la ngeen mën si man xoola ngeen rey ma te boo leen ma reyee xoola bu ma janoog sama borom damay fier est-ce ay dégg wala ngeen dugal ma si kaso bi est-ce ay dégg loolu ngeen ma mënal ku waa nijaay ku baax dégg leen dëgg yàlla tax ngeen góorgóorlu ngeen am jom du ma ree ndax ma ne la su waay sama sang Baye Cheikh Mamour Insa Diop bëgg Baye moom laay dund sang bi bëgg naa la sama xol yow xam nga lépp moom sax bëggul lii mais rek nga ma tooñ nëbbu ma ko je suis un frustré dañ da ma tooñ man sénégalais man jeune sénégalais rek nga ma tooñ amel ma àq samay àq ak sama yelleef laay kaas di ko kaas nax di ko kaasan parce que nu lëmb di si jaamu yàlla bu ma ree nax sang bi. maa lay ziar di la màggal di la bëgg di la jox sa wàccuwaay dara rek laa bëgg suñu ma ree moom sang bi mu jël ma ñu tegal ma drapeau vert jaune rouge ba pare yóbbu ma Medina Baye yaa ngi dégg voilà te su ma janoog sama borom saa yi naa fier ma dugalee si kaso bi ndax saa waay xoola mooy loolu ñun suñ combat yi nekk duñ mës a bàyyi mu sedd waa ku baax noonu la demee yërmande waa ci seen sénégalais moom moo leen nit yi waaw Khalifa Sall man je suis pas xalifiste man askanu Sénégal laa fi nekkal Khalifa Sall Sénégalais doomu Sénégal la yàgg jëriñ Sénégal yàgg xeexal Sénégal Khalifa Sall may la sum waaye xoola bi muy liggéey si état Sénégal Macky Sall sax laa lay wax nii xoola xëy na xoola étudiant la woon. est ay dégg noonu la demee Khalifa Sall saa waaye xoola moo leen gën a doon nekk garmi moo leen gën a nekk gor ba pare sum waaye xoola gën leen tekk si mim réew ëpp code de popularité ëpp leen fi maqaama ëpp leen xoola dayoo ak jëf ju rafet est-ce dégg ñu jaay ko doole dugal ko si kaso bi nax politique ñun sénégalais ñëpp xam na ñun demee et que noonu moom nañ dénoncé te moom nañ sax moom nañuy sax si di ko dénoncé nañ ko bàyyi mu ñibbi te yàlla tax deful dara yërmande Macky Sall bu amoon jom fi Khalifa Sall jaar ak moom parce que ñun Sénégal nañu dëgg ñun xam nañ lépp nu mu demee bu amoon jom du sax xaar ñu koy naan graciel Khalifa Sall est-ce que dégg parce en tant que humain rek am na lu mu ko jot a defal moom xam na mu baax <laughs> yaa ngi dégg noonu la demee ko quoi mais koo xam ne yow deretu jaam mooy daw sa siritu yaram yi koo xam ni doo gor doo garmi munoo xam lu baax mu noo xam noblesse kon loolu bertuñu si moom quoi xam lu ma la wax ya saay la demee Khalifa Sall nax li ngeen ko jaayee doole tooñ ko day yàggal ak mais xoolal dëgg rek kay mujj yàlla dina leen àtte ñoom ñëpp nax ñoom ñëpp may la sum waaye yu jaar si mafia bi tooñ Khalifa Sall dugal ko si kaso bi ñoom ñëpp xoola yàlla na leen àtte fii ate leen fële waaw parce que dëgg rek mu mujj gu xam lu ma la wax et aussi Khalifa Sall ni ko tooñee tooñee nañ noonu saa waaye xoola ay sénégalais yu bëri man noonu nag ma tooñee teewul ni maa ngi nii xoola combat yi may nekk nii may la sum waaye xoola maa ngi si ba léegi du gis ngeen xoola su ma nekkoon si combat bi xoola un pour cent léegi maa ngi si cinquante pour cent voilà noonu la demee quoi te nëbbu ma ko frustré te sénégalais laa lépp lu ma wax ma la su waay xoola am naa droit wax ko parce sama town laa nekk sama dëkk laa nekk nekk artiste rappeur nekk porteur de voix dama wax par force essaye dégg noonu la demee quoi te bu kenn génn ma la su ma waay di ma tere wax wala dara su ma boo si kase bu ma kenn seet si la demee.